mbokk internet yu Sen Teranga TV kontaan ci topp bi ngeen ñi topp euh, fii nga xamante ne nag moom mooy Mermoz dend ak Auchan bi janook li nga xamante ni moom mooy Ecobank bi euh, lu doy waar moo fi am démb daanaka vingt vingt deux heures sax jotagul lu mbir mu doy waar alors ni mu demee nag mooy benn soxna si nga xam ne dafa ànd ak borom këram génn ci Ecobank bi comme ni ngeen gisee Ecobank boobu la daal di génn bi mu retiré ba pare xaalisam ci la ko ñetti agresseur daal di toppee euh, bi ñu ko toppee rek daal di jël li nga xamante ni këf saagam daw bi mu këfee saagam daw ba xoolee soxna si sax fi ñu nekkee nii sens interdit bi la bët daal di jéggi li nga xamante ni moom mooy territoire bi euh, daw euh, dàq ji leen ak otoom maanaam loolu dal seen kaw kenn ki moom dafa ñàkk bakkanam sa saasi eh, oto bi nag xam naa nag suñu cameraman dina ko daal di wane léegi ngeen gis yàqu-yàqu yi nga xamante am na ci oto bi eh, ñu ngi dégg ci xibaar également ci ñu ci fekk ni soxna si dafa nekkoon dafa nekk enceinte eh, waaye nag ki nga xamante ni mooy ñetti agresseurs yi kenn ki mi jamono bii mi ngi ci din mi ngi ci diggante dund ak dee kenn ki dafa ñàkk bakkanam ci tàng-tàng bi ba ñu ko yóbbu fi nga xamante ni moom mooy morgue ba ñetteelu euh, agresseur bi également dafa daal di daw loolu moo fi am di lu doy waar démb daanaka bu 22 heures jàpp 23 heures jotee dañu jékki-jékki dégg yuuxoo yi waa nag bëtt na li nga xamante ni mooy sens interdit bi euh, ni moom la ñuy woowee Boubacar euh, moom mi ngi fii di ab dëkkandoo am na lu mu ci xam xam euh, leen di wan li nga xamante moom moo am euh, ci biir oto bi gis ngeen oto bi boo leen xoolee xam ni yàqute yi xaw xaw na doy waar te mu dalee également doy na waar gis ngeen ni nii la def euh, boo xoolee radiateur bi ba ci moteur bi ba ci batterie bi sax déplacé wu na parce que dafa leen mbëkk mbëkk bu am doole diriwaa ji ba xoolee lii nga gis nga gis ni lii ay ay deret la ngeen baal ñu nag foog ñu foog ñu wax leen ko lii ngeen gis ni lii sang la maanaam deret la boo xamante ni ki nga xamante ni moom moo ñàkk bakkanam waa ji nag da koo mbëkk ba pare diri ko boo leen xoolee ci suuf dañ ko dafa mbëkk waaju ba pare diri ko ànd ak moom ba fii euh, fi mu taxawee nag waaji bi ñu koy xëcc si suufu oto bi fekk euh, euh, moom dal di nay génn àddina dañuy dem ci Boubacar en attendant ngeen gis nii oto bi nag ñii la mel oto bi moom moo moom mbëkk agresseurs yi waaye agresseurs yi te rek ñoom ñoo këf nga xamante ni moom mooy saagu saagu soxnaam te soxna si ñu wax ci xibaar ni dafa nekk enceinte gis ngeen pare-brise daal di nay daal di nay yàqu xam naa dañuy doxant rek euh, mbokk internet yu Sen Teranga TV dem ci euh, suñu dëkkandoo wala dëkkandoo euh, bi xamante ni fi la nekkoon Boubacar am na lu mu ñu si doon commencé expliquer ci laa nañu ko nañu taal suñu suñuy caméra daal di jëm a doxantu jëm ko jël euh, Ousmane ma ci ànd ak euh, Ousmane ci caméra bi en direct fi nga xamante ni moom mooy euh, Mermoz ci wetu Auchan bi wala xam naa dañuy jéem a dëgg tànk yi rek Ousmane tuuti pour doxantu bu ñu ñëwee ba ci Boubacar Boubacar am na lu mu ci xam dina ko daal di expliquer mbokk internet yu Sen Teranga TV mais jàpp leen rek ni loolu moom moo fi am depuis démb daanaka bu 22h jàpp 23h jotee Boubacar nag moom jaaykatu ndekki la moom nag bi mu yëgee affaire bi dafa daal di daw euh, bi mu dawee nag ci la ñëw gis gis am ku ñàkk bakkanam comme ni mu ko doon expliqué sànq hors caméra bi xam naa nag dañuy ñëw euh, daal di xool euh, ni ñu ko jëlee nii rek xaw ko bat alors Boubacar mën nga ñëw toog nii Boubacar ñu ngi lay Boubacar mën nga taxaw nii Boubacar ñu ngi lay ziar. delloo ziar. alhamdulilah. ñu ngi lay ziar. xoolal ma caméra bi. waaw ah. voilà. Euh, mhm. quinze ans. ay dix neuf heures quinze loolu jàpp julli timis ma pare rek ma dugg sama place bu ma duggee même pa moto sax dix minutes ma dégg ren ma ne ah, accident am na après ma ma daw yurnu gis accident bi. gis oto bi dafa ko pono yi yeneen pono yi ñu ngi dafa palanke nii gis naa palanke bi eh, kuy dawal gis naa ko eh, mu mu rëcceeku si kaw kii bi noonu si buntu fu mu toogo mu ci peelu kon xam nga maa kees maa fi nekk sama place ma daw après ma delluwaat sama place après fu ma delluwaatee noonu pour xool fekk gars yi dafa bari foofu ampa gars yi après ñu ñu jël oto bi gars yi oto bi ñu wàccee ñu wàccee oto bi fu mu nekko mu taxaw fu mu teg ko benn waay ñoo man a ah, daa amul fu gaañ foofu mu ne ah, en tout cas ñaari gaañu nañu am na ku dee am na ku vraiment dafa sonn après a ah, nde léegi nag ñu nekk si bi nag mu ne amoon na benn jigéen foofu wax dëgg yàlla dafa xaw a sonn tuuti kon waaye dara gaañul ko kon dafa xaw a sonn ma ne ah loolu de doy na waar après lool loolu rek la mais ki dee moom kii ñàkk bakkanam gis nga ñu tiim ko deret bi sang non ma fu ma ñëwee tiim ko avant eh, fekke naa ñu muure bopp bi boobu bi rek la ñu mu rewoon quoi kon waaye yaram yëpp moo si bit waaw keneen ki moom ku gaañ si bob bi moom ku fekkee naa mu tedd foofu gaañ mu mu joxe fi numéro téléphone mu ne ay seeram la joxe gaañ numéro téléphone pour ñu woo ñu wax ko affaire la. agresseur bi ñu woo moo doon wax pour ñu waaw ak benn waaw woo seeram après geneen composé woote waaw moom wala waxu la moom loolu moom fekkuma ko waaw. police après ndax ban la ñëw. non police moo xaw ma ban la ñu moom moo xaw a yeew tuuti kon am na kon xam rek am bu yenn embouteillage amee moom pour mu assi moom du yomb waaye am ambulance ñett ambulance ñëwoon na waaw mais deuxième personne bi nga xam ne dafa blessé blessé luy metti mu nekkee est-ce que mun mën lan nga gisee situation ah wax dëgg yàlla sonn na de loolu moom parce que bopp bi moom dafa sonn trop encore soo xoolee botaw yi lu muy xoolee saa xam ne ne kii dafa sonn parce que boti mu ngi lu muy lu lu muy woolee boti xam nga wax dëgg yàlla mu ngi son muy wax wax dëgg yàlla moom day dee parce que dafa sonn xam nga yaram si eh, su affaire daan woon wax dëgg yàlla su la méttee ah, day heureusement ay affaire gudd guddi ay vingt dix neuf yooyu ay ko eh, moom day gën a sonn parce que bi tàngaay la. donc agresseur bi moom moo tiitoon moo tëdd en tout cas naan man damay dee. Euh, mais est nit ñi yërëmoon nañ ko parce que da doon agressé ah, aussi. dégg yàlla ñu am na benn waaye ku yoroon jël loo xam tey ko nii fii mu après benn koy uuf xam nga rek Sénégal moom jàmm salaam rek loo mënta mais rek su amee zaar su kii day lay jàppale parce que ñi waa agressé la gars yi xam ne agressé lañ kon xam nga rek nit nit rek lay doon ba ni ama Adama moom nit rek lay mel mel soo baaxee alhamdulilah soo bonee alhamdulilah xam nga kon wax dëgg yàlla am na ko yaram parce que kenn dóor ko def ko dara donc koy bàyyi rek ba ambulance bi ñëw dugal ko ci biir ambulance bi waaw. ñaari so ku góor ki ak soxnaam si après ñoom dañu dem tranquillement gaañu dafuñ blessé wuñ dafuñ dara. non boobu lay xaw ma na parce que man man gisuma ku góor ki ku euh, après fu mu génnee si oto bi rek laa ko ko seen au cas dama ko seen kon waaye fu mu génnee ba pare gisuma ko jigéen gi laa gisu mu tedd si suuf kon waaye gisuma grand bi. ki ki ki dañu dégg ni dafa ëmb ni nga ko gisee ndax avancé na. non non xool ma de man de gaañoo ma rigueur laa dégg boobu dafa ëmb quoi kon man sekk naa mu tëdd kon xool ma ko bu baax quoi. lan ngay ban message ngay lancé insécurité bi am fii ci Ndakaar rawatina si. ah ter bi de moom dafa bëri agresseur moom fii moom wax dëgg yàlla du wante dëgg dëgg jàmm salaam fii dafa bari trop wax dëgg yàlla koñ moom Mermoz bi eh, van résidence bi loo koy chaque jour nga gis ko ay agresseur daw fii a yor moto loolu bëri na de wax dëgg yàlla. xam nga fii presque léegi bureau yi bari na si koñ bi affaire am nga rek yaa ma gën loolu rek la am. merci beaucoup ok merci. ñu continuer suñu reportage euh, grand ñu la ndax mbir mi nan nga ko jàngatee en tant que dëkkandoo. waa en tant que dëkkandoo man fi laay liggéey góor gi ñaa mais moom li mu si xam mooy koñ bi moom bëri na agression trop trop trop y' a trop de moto yoo xam ne ay trois personnes lañ def wala deux personnes te bu ñëwee dañuy këf saagu jigéen ñi wala kenn ku jóge banque ñu këf sa saag kii bi euh, waa insécurité bëri na te kii bi autorités yi dañ ci war a jub yaa trop agression trop ba pare fii la ñuy jaar dem dem corniche ba booy yi fii la jaar dem corniche chaque ngoon non non kenn du leen topp parce que fii doo am xam moyen pour topp leen déjà ñoom dañuy bëri te dañuy armé wu ñenn ñi moto la ñuy yor moto yi day am puissance waaw loolu moo tax daal fii daal moom koñ bi moom Mermoz moom léegi moom dafa yàqu moom dafa yàqu carrément Fann Résidence Mermoz dafa yàqu carrément te tali bi fii moom bu xasee ba libre moom amatul bu ñëwee bu ñu ko sa moto dootoo leen gis te bëri na trop énormément moom waaw. si message bi mbir mi ndax am na loo ci yëg wala comme di ko dëkkandoo. waaw non man fekkeewu ma ko nag quoi man fekkeewu ma ko mais bi ma ñëwee suba lañ ma ko expliqué mais xam naa ne daal moom ñi ko fiy def moom tout le temps ñoom dañ fiy jaar dañ fiy ronu du xool ah tout le temps dañuy jaar fii di ronu di xool ndax temps libre bu amee rek moom comme ay dix huit heures dix neuf heures wala ay treize heures rek ñoom heure boobu ñoom la ñuy romb mhm. waaw waaw di ronu di xool ku ñu gis nga libre yor saak ñu këf ko. wala yor sa téléphone ñu këf ko ak day sala mënoo si dara waaw mais fekkeewu ma ko moom waaw. message ngay lancé euh, pour suñu euh, ministre de l' parce que moom moo yor kaaraange gi ci biir réew mi. waaw ministre de l' xam kaaraange yi mooy mooy nañ xool booy yor moto moto à trois personnes yi il faut ñu leen di xool loolu loolu moom faw ñu koy xool parce que dafa bëri phénomène la yow déjà yow boo booy dox sax boo déggee moto sax da ngay tiit gestu pour xool lamb sa portable wala bu da nga yor sax xam nga nga yow boo déggee moto rek même bu nekkee benn personne sax da xamal léegi da ngay jaaxle ba moo tax ñoom faw ñu faw ñu xool si bu baax a baax a baax faw ñu xool lan lañ war a defalee loolu bu fekkee dañ ko war a légaliser ñu légaliser ñiy sol ay tenue wala yor seen permis wala yor seen benn xam seen benn affaire boo xam ne dañ xam ne kii day liggéey si cag-cag mais mun ñu ko bàyyi nii moom nii moom c'est trop moom trop léegi lu leen neex ñoom lañuy def lu leen neex dañuy dicter seen loi à partir de 17 bu jotee 19 heures 20 heures ñoom ñoo fi moom ah lu ñu romb day dem kenn mënu si dara waaw loolu nag moom ministre de l'intérieur war na si bëri bàyyi xel bu baax a baax xool nañ lay mën a defee ay check point sax bu dee ay rond point yi ak rond point yi ñu xool check point nga xam ne kii bu rëccee fii bu ñu wootee fii mën ko jàpp waaw ok merci beaucoup. voilà euh, ñuy continuer li nga xamante ni voilà moom mooy euh, reportage bi sëñ bi amul loo ci mën a sànni voilà grand amul loo ci mën a sànni euh, mbir mi doy tout ce que je peux c'est plaider que la sécurité que la sécurité soit améliorée la sécurité doit être améliorée surtout les femmes sont tellement victimes parce que man am naa moto maa ngi ci tali bi mais les femmes sont tellement victimes donc euh, voilà. mais li xew démb am na loo ci xam. non démb ci waaw démb je ne suis pas là après je me suis revenu j'ai trouvé le euh, le moment de drame je ne suis pas là Je ne sais rien du tout de sur ça. Mais je sais que quand même, les femmes sont tellement victimes. Les agresseurs se multiplient. L'agression se multiplie chaque jour. Donc, on, la sécurité doit être euh, renforcée sur ce domaine. Merci. voilà xam naa Ousse nag euh, dañuy euh, daal di tëj euh, dañuy avance tuuti rek dem tëj li nga xamante ni moom mooy suñu reportage bi ñu leen amal fii ci Mermoz côté wala sax côté Fann Résidence di jéye bu doy waar bi nga xamante ni am na fi démb di ñetti agresseur yu topp benn soxna ba daal di këf saagam soxna si nag maanaam borom këram daw dax ji leen fiir kenn ki ñaar ñi sax la fiir mbëkk leen kenn ki daal di nekk si diggante dund ak dee mooy bërëbu sawatage kenn di ki également daal di faatu euh, ci euh, tàng-tàng bi voilà li la indiloon ci euh, reportage du jour ak faits divers yi nga xamante ni moom mooy faral di am ci dëkk bi lépp lu ci mën am rek dinañ dem taal suñu oto dem ba foofu pour dëkkal ko mbokk internet di Sen Teranga TV ndax lépp lu leen jox xibaar yu wér te wóor ci la ñuy dox ma àndoon ci ak Ousmane àndoon ci ak Cheikh sama chauffeur Ousin moo nekkoon ci kàddu gi jaajëf